amul dépression amul stress wallahi lazim nit ñangi xey di faatu di suicider wu juste parce que li ñuy dund metti na metti go xam même suñ la ko raconté yow do gis do gis metti bi tant que dundoo ko yenn xeetu mettit yi tant que dundoo ko yow au plus profond wala nga gis sa nit mu koy yak di ko mu koy détériorer mu jógee 100 kg ba 50 kg euh, mu nekk lu nga xamante souffrance la bo xamante ni ko expliquer mënu ko expliquer ba nit ki dund ko looloy indi ay suicide euh Euh, feebar yooyu nga xamante feebar ay goitre moo la koy mën a jox. surtout métti di ngay accumuler dof c'est le mot. bon oui la dépression vraiment jigéen ñu bëri yaa leen gis ñuy dox. ñii dem nekkatuñu ak seen xel. justement am ñoo xam te ne nag physiquement boo leen gisee di nga xam ne ñi carrément dof nañ mooy ñu toog si mbedd yi. waaw kay ñooñu bul xam lan moo nekk si ginnaaw parce que Sénégal dañ dul bàyyi nit ki mu développé wu. mu développé li mu sentir mu wax ko. tey jii nii par exemple ci côté viol bi nii dangay ngay gis cas yoo xamante ne nii te moo gën a bëri nag moo gën a fréquent parce que l'âne ne broute que là attaché li ñuy wax waa nit ki fu mu nekk rek fa la en général li ko fay dal di ko fa dal mhm. da ngay nekk ci kër sa oncle sa rax rakku yaay tey moom nañ laal rek fu mu gën a safee. non dañ koy dinañ ko wax. da ngay nekk ci kër sa rakku yaay nekk fii ak yow yar la nga judd nga judd si kanamam ngay nàmp si kanamam mu di la téye nii fi muy commencé xem am na ñoom tamit xaw ma dañu dañu dof xaw ma lan mooy dal fi mu lay commencé xem mooy fi nga nekkee xale bébé nekk ay un an quelque am na xale yoo xamante ni mais dañuy nekk xale yu ndaw seen oncle téye leen mais li ñu leen di noggatu mooy comme sànq ñu doon wax. Ah, ah, ay di nekkul rek acte sexuel bi nit ki di jël maanaam sexe bu góor ak bu jigéen daje. nit ki parfois nga jël xale di ko noggatu ci ay affaires yoo waaw di ko di ko di ko di mu di di solo deful couche wala solo dara yaa ngi koy noggatu di làmb sexe am partout gauche droite gauche droite gauche droite loolu viol la. te mu ngi mu ngi xew ci kër yi parfois yow yaay ji sax da koy yëg mais sa la da ngay naan pat ak moom parce que sa rakk la. yow doo doo jéem a défendre sa doom ji nga xamante ni être la xale boo xamante ne amul sa elle sans défense doo ko défendre beneen bi nga xamante ne tamit dañuy nekk ci kër yi da ngay nekk ak sa jëkkër nga bëgg ko nga divorcé nekk femme divorcée wala je sais pas quoi am nga doom daal bu jigéen ndax euh, circonstances yi day bëri nga nekk sa jëkkër léegi yow bëgg nga sa jëkkër da ngay sàmm sëy boobu noonu tellement que da nga peut-être divorcé woon nga wala amoon nga yeneen yeneen ay affaires yoo xam te ne mës na la daal donc doo bëgg a divorcé waat dañuy nekk si kër gi sa jëkkër di nekk ak yow di nekk xale bi nga xamante ne moom nga yor wala nekk ak kenn koo xamante ne moom sa doom wala quelque chose comme sa di ko def yenn acte sexuel yoo xamante ne yow xale bi soit mu am fit wax la ko mais da ngay noppi wala mu ñàkk am fit waxu ko xale bi di dund lool ci kër gi yow yaa ji yaa fi ñëpp ngi si kër gi te kenn du wax am na viol yoo xamante ni mi ngi ci kër yi te musuñu ci développé kenn du ci wax comme amul comme dara xewul léegi kañ la xale bi di xam euh, conséquences yi muy dund day dem ba marié day dem ba sëyi xale nga mosoo sëy kenn mosu laa gis nga sëyi am nga copain xëy nga maye nañ la léegi yow euh, Sénégal am na yeneen réalité mooy dangaa war a am ndaw wala danga war def lii léegi owee la ndaw ndaw amul lan lan moo xew. te doo parce que signalé wuñu dara kenn xamul lu la mës a dal yow. Mm-hmm. dañu lan la ñuy conclure da nga mës a fayu da nga war a mës a def lii doo ko ñemee wax ba tey jii yaa ngi sëy am na ñoo xam te ne nim ba nekk maire nit ñi toogee nii violé woon nañ seen xale kenn xam ko. ba mm-hmm. jëkkër ñu sëyal nii sax. duñ ko nettali daal amul amul ndaw daal tax kenn xamul fu ndaw jaar. kenn du ko wax duñ ko nettali parce que dañuy foog ni que euh, gàcce la. du gàcce être violé du gàcce. te suñ la violé y a des maisons comme euh, euh, association Bidi universelle ñom mo leen a di leen jappelé dafa dafa am solo ngeen di message yi di xam ban buntu ngeen di feug ak no mën ci tollu ak euh, non je commence viol pour on commence par l'attouchement buñ la commencé à te ki lay ray waru la ray amul sax war à part sa papa wala sa yaay man pour man dom. amul sax

parce qu'en fait euh, on vit dans une société où xam les gens sont dans le sutura nëpp nëppal bee fi bëri te daf fi war a jeex nëpp nëpp bi ay déedéet bu mu jëm kaw ay yow da ngay tasum famille ci sutura non il faut qu'on puisse initier nos enfants di wax ak nous, casser le casser casser la coquille parce que amna na ya nga xam wu deug fa yalla war na mën denc société bi man dama nan des fois tuba bi fa la ñu parce que il communique avec leurs enfants. Mais, mais euh, Afrique, les, les, parents, je suis désolée, ils ne communiquent pas avec leurs enfants. Non seulement avec leurs enfants, mais à l'école, bien que dafa de falani jàngi jee ñoom dóor yi mbet mbet bu ndaw bi mën nañ cee tëj sa papa ci sa yaay parce que xale kenn du maltraité loolu lañ koy njëkk a en Europe euh, sama dom bu góor bi ba ñuy doog a dem benn jour mu ne dafa budde noonu ma ñam ñamal ko rek quelque rek ma je vais appeler le le le 17 ma ko le 17 pourquoi parce qu'on fera pas les enfants ici ma ne on fera pas les enfants. c'est ce qu'on lui a appris à l'école l'importance du message Moi, dañ koo teel a xam gëddam euh, akam, ak yeleefam da koy xam xam na ni que tonton bi di ma jox bonbon bi amul droit may ma bonbon bi en échange de quoi que ce soit mm-hmm. amul droit bi tonton bi amul droit bi dugal ma ci ci ci ruq bi amul droit laal amul droit euh, toucher ma amul droit raay ma amul droit def dara. xamna bu baax boko defé defee loolu da wax maîtresse bi wala mu wax ko directrice wala mu wax ko ben xaritam euh, collègue am euh, benn camarade am camarade bi eggee ko su féké ndaf ko ragala wax parents mi moi je pense que ça on devrait l'instruire à l'école mu nek cours bo xamante que dañ koy jangal xalé yi mm. parce que à l'école la gëna épanouir à l'école la gëna gën gëna gëna nek gën en en symbiose et puis ils passent la majeure partie de leur temps à l'école aussi hein ça pour man mesure yi buñ ci ci mesure yi jël nañ ko instruire à l'école comme ça au moins xalé bi dina fa joxe message bo xamanteni ñom suivi bi dinañ ko def dinañ contacter ay maison yu melni euh, maison universelle ñom ñu jël sen matuwaay ba yoy du am kaa à l'école boobu ngay wax à l'école bi lu da fay xew en parlant d'école on va tout de suite regarder un élément qui est ni ci une école coranique tey moom dañ koy tudd moom tey moom yax bi dañ koy toj mhm. góom bi dañ koy bomb ba les conséquences que ñun liñ fi nekkal Les victime li jëntiwuñu ki les def fa mu tarixa wala lim église ko élément